teranga ji mu len ji taxna aljuma ji fele ci daru khudus fo sandi mbattu mu tak ser faatixa rek sëñ ci mu len géej bi ci mbaakoon darobe be mbake mbake dal ziar ma jama yasin sallak balla yasin sallak ak masila yasin silla amadou binte jaane la sen bay tuddu waye amadou binte jaane ak ibra binte ak ma jaxata binte jaane ak arsa binte jaane ak mayit binte jaane waye dara man la sen bay tuddu waye binte jaane fatma jóob ko jur fatma jóob lu be ko jur حسين سمعت بلا fukki commune ak juróom benn ñoo daje ànd ak kii di Serigne Mbacké la président mouvement MCS nekkoon tête de liste bunt bi doon dem fekki Benno Bokk Yaakaar militant am yi daje ngir delloo ko njukkal waaye it pare ngir fu mu jëm ñu fekk ko fa ñun bi ñuy ànd ak moom ba léegi rëccuwuñu ko mu nekk fi ak ñun nekkin boo xam ne bu macha allah la ñun ay ndaw lañ te ñun ku ñu yëg ñu yëg la te moom daf ñoo jàppale dooleel ñu sëñ Mbacké Sylla foo ko woo mu wuyu la maa ngi koy tooñ sànq nekko yaa ngi fàttaliku fii ci mbënd mi fii ndox mi bu mu taayee fii bi ngay xuus kon kii damay ñaan ñi nga xam ne ñoo fi teewal monsieur le président de la république ne ñu jàppale jëmm ji jëmm ji day dox si social jëmm ji dara yitteelu ko lu dul bëgg-bëgg ji

di ñu jox jigen ñi di ñu defal ay formation di ñu defal legati ngor di and ak ñun yeeram ñu na nak do ngay daara yi ndax day jënd ay matla di jënd ay basang di and ak ñun di dugg ci daara yi di ko séddale ñun jigen ñii mu taxawal ni legati ngor yo xamne benn jigen xolé tu gerté benn jigen bu and ak président seigne bakka sile mom xolé to gerté ndax nag wax dëgg yàlla defal nañu formation yo xamne ni ñoom liggéey kenn ku ci nekk di ci def sa bopp may ñaan kilifa yi nga xam ne ñoo fi taxawal président Macky Sall di leen yëgal ne di leen jox ab yóbbante ci président Macky Sall di ko wax ne président sëñ Mbacke mii rek bu ñu ko jàppalee mu dem ndax ki ci ñaq boppam di jàppale doomu aadama yaakaar naa ne boo amee ku la jàpp na mu dem te ñun dara ñoruñu nag lu président sëñ Mbacke mii ñoo ngi ci gannaawam tey ñoo ngi ci gannaawam suba ñun de gis na leader bu nek ci Touba waye ñun ku melne Serigne Mbacke Sylla ñun mësuñu koo gis ndax dañuy gis ay leader yo xamantene dañuy ñew di waxal ñun lan wax buñ fa jógee jóge nañ fa. waye nak ñun jigéen di Touba li ñu dala suxal moy lenn Serigne Mbacke Sylla mi doomu dëkk bi la ci dëkk bi la juddoo ci la yaro ci la jàngee. président Serigne Mbacke Sylla ah ñu ngi koy sant ñun mënuñu ko fay surtout man mi di présidente soxna Thioro Sylla man mënuma fay Serigne Mbacke mi ndax fépp foo xam ne dem nañ fa rencontre rek dooleem la fa demee ak jëmmam ak ak ak ak poosam kon nag moom dañ koy sant ku ko mën a jàppale na ngeen ko gën a jàppale bu baax ndax jëmm ji ku am mbooloo la ñii mbooloo mi li muy yaatu yaatu li muy rëy rëy président sëñ Mbacke Sylla mi rek lañ àndal bu nee jóg leen ñu jóg bu nee toog leen ñu toog ñun moom rek la ñuy déglu ko xam ci fula lañ ko xam ci jom lañ ko xam ci respect lañ ko xam ndax loolu lu ñu seet moom la ñu dund ñoo ngi wax itam ne li nga xam ne mooy di liggéey bi yàgg na di ca dox saa su lu rafet la ciy dox saa su ak jàmbaram lay wan moom la wan te moom la doxee ak moom tubaay gi nag moo ko ñor moom mile kontaan lool ñëwaat na ci li waral mu jëm fekki Benno Bokk Yaakaar waaye it di xamle ni lu mu mën dina ko def ngir ñu am ndam lu rëy ci élection yi ñu jëm. ñun dañuy politique waaye politique développement la def politique ngir jariñu ndax ñun ay chef d'entreprise lañu yàlla dimbale nañu am na lu ñu dunde am na lu ñu dunde suñu njaboot nuy ay doom yi soxna dëkk ci dëkk bi bokk ci njabootu Cheikh Mor Yassine waaye bokk ci njabootu Serigne Maniaw nu xam ne kat li nu réew li nu am réew mi nu ko defal waaye yellul li nu am nu di ko lekk ñun képp te bokk du ko baa réew mi rawatina dëkk bii di Touba loolu mooy sababu nu dugg ci dëkk bi yërëm jigéen yi. nu disons que kat seen matuwaay yi xëy na matul lanu am ko su néew ni di ko ak mouvement bii nga mouvement MCS di mouvement des chefs du Sénégal waaye di mouvement des Jimo. Nous ñu bokk ndey bokk baay bokk lépp kenn ku ci nekk bëgg-bëggam mooy sa bëgg-bëgg ba yàlla suñu borom def lii nga xam ne coalition bunt bi seet ci département bu Mbacké ak commune bu Touba ci jamono yi nga élection législative bi nu ñëwee waxtaan nan ñu waxtaan ak suñuy responsable ñu gis ne ñun noo leen mën a gañal département bi te effectivement département bii nu nekk muy Mbacké euh, nu nekk tey ci commune bu Touba nekk ci quartier Daara Khoudoss fii di suñu siège defe naa li ñu liggéey ci euh, pré campagne bi ci seize communes yi may nañu nu gagné li nga xam ne mooy département bi massivement fii ñi fi toog ñëpp di ay ndaw di ay mag mag ñi ak ndaw ñi ñëpp gis nañ président Serigne Mbacké Sylla ci ab liggéeyam ba tax na nag man fu ma dem la samay nit di dem loolu man ñun moom moom mouvement espèce ci jëf lañ gën a man ci wax ñun nag yàlla noo dimbale bokkuñu ci politique gu xeex bokkuñu ci politique gu xaste ca fas yéene wuñ cee bokk fa suñuy maam jaaroon ci digganteem ak Seexul Xadiim maa ngi sang yi toog ñun foofu leen fas yéenee jaar ak taalibe Sëriñ Tuubaa yi politique nag danoo gis ne jaamu yàlla la moo tax nu dugg ci fas yéene cee jaamu yàlla fas yéene cee xam askan wi lu ñu bëgg te le rôle du député dafa jot bu baax askanu Touba xam lan mooy rôle du député président Macky Sall man de yaakaar naa taalibe Sëriñ Tuubaa la ci seet yii ku xool li ci ginnaaw gis banderole yee la ca nekk di ngeen xam ne benn message lay wax muy ndigalul Serigne Mountakha mooy yittey Serigne Mbacké Sylla loolu nag lañ fas yéenee campagne ci mboolem njabootu ci la dara maan biñ ci ndigal ci xalifab Serigne Moustapha Ramata Sylla di xalifab ci la dara maan ndax ñun lu ñuy def dañ ci laaj ndigal ba am ko biñ ko waxee mboolem njabootu Serigne Touba gépp ak Cheikh Sidi xaw kan waaye président Macky Sall lañu wooteel ndax li tax Serigne Mountakha dafa bëgg sa euh, président Macky Sall waaye ñun de tey jii bu ñëwee ci président Macky Sall lenn képp ak lenn rek lañu gis kenn moonu indi kenn moonu doy ci département bi fas yéene wunoo ànd ak moom kenn ku moom muy DG Lat Diop te yéen yaakaar naa yéen waa département bi cin bu naree neex bu baxee dafay xeeñ gis ngeen Lat Diop dafa bax xeeñ neex dama bëgg nag lu ngeen jàppoon ci coalition bunt bi tëj leen bunt boobu ubbi buntu Benno Bokk Yaakaar man nag dama leen di wax leen man damaa ragal damaa ragal defet defet laa ragal rek defet maa ngi leen di waatal ci yàlla Cheikh Abdou Bali Gaynde Fànn ministre conseiller liggéey nga ci Touba lu rëy sa fee nga xam ne fa nga dëkk yaa jël engagement di defar tali boobu waa Touba gépp umbu leen kon yow dañ lay ñaanal nga gudd fan. waaye ni ngi leen di seereel ci wax leen ne leen ñun bu ñu duggee ci combat bi seize communes yi nga xam ne liggéeyoo loolu nañ ko coalition bunt bi lépp dinañ ko yàqal président Macky Sall waaye nag ci DG Lat Diop lañ koy jaar ñun xam kenn DG Lat Diop lañ xam moom lañ ko séenee àndal taalibe Serigne Touba la ah, gis nañ fi nag ñuy dem ci sëriñ Cheikh Saliou di sukk ak di raam ak di joxe addiya di wane ne ñoom taalibe sëñ sëñ Moussa Saliou lan waaye dèjà la job bii taalibe sëñ Cheikh Saliou dafa leer naññi ku am kër ñaari kër ci Touba doon taalibe boo xam ne man bi ma toogee ak yow ak yàgg laa dégg li may gis ci yow rek mooy ak taalibe kon may sàkku ci yéen samay militant ak samay militant tous les responsables seize communes yëpp man Serigne Mbacké Sylla tête de liste coalition bunt bi ñëw naa ci DG la jot bu bàyyiwul du ma bàyyi te incha allahu taala dinañ leen may ndam le 31 juillet allahu taala di nuyu nag ak a sant sama journaliste yi kenn ci ñoom bu ma ko tuddee doy na sëkk muy sama koo xam ne baayam chef de parti la woon doonoon maire bu kawoon di sëñ Modou Gueye mii ñu gën koo xam ci sëriñ Ousmane Gueye ñu gënoon koo xam ci euh, digganteem ak Moustapha Niass

amul yitte ci biir Touba investir la ni ko coalition yëpp defee ñoom defewuñ ko noonu ñëw nu ci kanamu suñu taxaa tàllal loxo ñaanlu man ma dem ba xam ne Lat Diop as gor la Lat Diop ab taalibe la ca wax na ma loo xam ne def na ko te yaakaar naa li mu def ci Touba ci ak lim mayee ci biir Makka ak lim mayee ci ay permis ak lim def ci ay financement waa waa waa coalition yi Benno Bokk Yaakaar bu ñëpp defoon ne Lat Diop président du perte Touba na ngeen président ni mu daan perte Touba bii bokku ci ndax sëñ Mbacke Sylla dina ko jàppale ba nu gagné massivement te incha allahu taala yàlla nu ci yàlla yóbbu jàmm. gannaaw ba ñëwam ci coalition bii di Benno Bokk Yaakaar jaare ci kii di Lat Diop directeur LONASE ay ndawam ñëwoon nañu fekke bés bile waaye it daal di koy dalal jàmm. président Lat Diop nee na mu ngi lay dalal te nee na comme lu mu ko faral di waxee du digaate waaye nee na bés ni ki tey lépp lu ngeen xam ne nekk nga ci incha allah dina ko bokk ak yow te yaakaar naa ne président Lat Diop su ko waxee ñëpp war ko gëm. Euh, président Lat Diop première bu mu njëkkee dugg Touba c'était en 2017 bu mu duggee Touba première magal bu mu ma njëkk a jox xaalis ma jëflante ko ak responsable yu fi nekk c'était 20 millions mu def ko ci magalu Serigne Touba bi ci digganteem ak responsable yi. Euh, président Lat Diop dafa faral di wax ne.

toog si na tey incha allah balaa ñuy dem fii ak magal bii di ñëw dina leen wax ne nag ah, ku ma doon wër gis naa ko te ànd ak Cheikh Mbacke Sylla du seet ci mañaw si la liggéey lu am doole ci euh, Touba ak mouridisme ma xam bu baax lien ak ra ak lien ak parole yu mu seqoon sama maam Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf ci taxawu Serigne Touba ci moment yi muy méttee kon Serigne Mbacké Sylla su ñëwee fekk si Lat Dior bi la di sëttu Lat Dior Dior ànd ak Cheikh Pouye di sëttu Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf du ñëw di ma ñaaw si la waakaar naa ne nag kon ndam mën naa am te ñu ngi leen di woo le soir du 31 juillet yéen ñëpp ngeen voté massivement la liste di Benno Bokk Yaakaar. nang lay dalal dalalaat sax lay wax. ndax yow dalal nañ la ba pare xam nañ ne ku jubóog say bokk nga ku ànd ak xale yi nga ku jigéen ñi fonk nga kon loolu loolu loolu loolu boo bàyyee la nga nekkoon ne léegi kan man maro bees la liste bii laay voté loolu kon tel mën naa dal Serigne Mbacké Sylla nag ay jëfam du lu ump fukki commune ak juróom-benn ndax jógul benn yoon ci taxawu leen ba tax ci bësam bi waa Mbàkke fësal nañu seen cofeel ci moom te di ko xamal ne moom rekk te lu mu dugg ñu ànd ca ak moom.